Lamine Samba la ñuy àndal ci li ci yéen kaay ñu ngi lay ziar ci aljuma ji di la jox sa wàccuwaay Lamine. ma sœur bu dëgg-dëgg dama la bëgg trop bu ma hmm. waxati Lamine day jaaw <laughs> non sérieusement non dama la bëgg trop. waaw Lamine. tey moo xam naa eh, eh, la Ibu euh, euh, congé partenité bi daa jeex. <laughs> ah mais internet bee la weere weeje de. yow li kii waa ji doon wax fii léegi man sama kër laa toog di def nii rek gis Ibu Diouf baptisé. gis nga de te ñoom yoon du ci nekk. yoon du ci nekk. xam nga ah moom da ko jëloon 15 jours yéen yéen a toog nekk depuis 15 jours. gisuñu kii day wax lu ko neex ah, a toog nekk depuis 15 jours gisuñu la. benn vendredi la ma gisul rek. non ah, non depuis 15 jours Chérif xam nga yow ngay wax ba pare di ko fàtte. nit ñi non moi je non Chérif sa waa Mamadou mu man de Zassou Moussa Kédé daan dégg sama benn xarit mu espagnol mu ne le traducteur est un traître. parce que en en général li ñuy wax ak li li maanaam il faut toujours nit ki li mu moom rek delloo ko ko. Mhm. mais jël jaaw fi teg ko muy wax lu ko neex. <laughs> di def maanaam di wax du ko ne mais c'est mais c'est insensé. 15 jours dafa bëri sax. waaw xam nga naan ay euh, euh, kii 15 jours quinze jours mais mais kii da laa ko quoi. vraiment te kii da la yab. waaw waxal ak moom fii muus son chat. nit ñi waxuñu mu yeewu seew di la tuumaal 15 congé de paternité 15 jours. wax ci bopp ah dëgg waaw waaw waaw demal sa sa juróomi minute yi gaaw. non man bu la neexee sax une minute. mais dañu tere man li ma la bëgg wax dinaa la ko wax. très bien. voilà jaajëf Lamine. ñu door ak l' observateur. waaw ñu doore kook l'observateur ak mbir mu doy waar bi nga xamante ni nii am na euh, ca bureau de passeports benn policier mu téye euh, li nga xamante ni moom mooy pistoleem euh, dóor boppam ba mujj ñàkk bakkanam nan la ñu war a mën a def ba relancer waat Air Sénégal International mi ngi ne fës ci xët mu njëkk l'observateur l'observateur yéen kaay ne lu doy waar mooy am at mu nekk fële nga xamante ni moom mooy ca décharge ba bës ndax daañu fa fekk fukki liir ak juróom yoo xamante ni nii Euh, dañ ko fay sànni Euh, te ñu ci bëri ci ñoom nee nañu euh, ñi fay liggéeyee euh, téeméer boo gis fukk ak juróom yi am nañu tuberculose bii nag bëggoon naa ñu dem xooli liir yi kan mooy seen pap am na ci kenn koo xamante ni ni fii xam naa ni du jóg ci am na ci ci fukki doom yi ak juróom-ñett boo moytu am na ci ñaar mbala ñett enquête yéen a kaay damaa weer sama géej enquête yéen ne kaay ne désemborsé nañu bomb bi ndax am na ci ay mesures yoo xamante ne nii ñii dañ leen di takkal ay grade ci police bi bàyyi ñii def ñii jël tuba yi paate képp ca boole kaw tuut bi kalaate loolu la ñu enquête yéene kaay xamal fa Walfadjri quotidien dikk ak ñun ci euh, bor bi bari bi am ci biir réew mi ñu ne Macky Sall euh, mi ngi doon jooy ci kanamu natangoom ñii euh, di patronat bu France bi Walf Fadjri quotidien daaneel euh, tribune yéenekaay it foofu la jëm nee na Macky Sall d'accord na ni def na ay erreur ndax li mu waroon a def jiital ko muy ordre de priorité def ko dëpp maanaam jiital li nga xamante mooy lu dul priorité def li nga xamante moom mooy priorité loolu du samay kàddu tribune kaay moo ñu ko xamal Vox Populi dikk ak ñun ne réew maa ngi fee ñaari fan a ngi nii ndéew réew mi di taw dem ci Pikine Géejawaay jaar Kër masaar dem Ndar dem Dagana dem Matam dem Kaolack dem Kaffrine fépp ñëpp ñi ngi euh, xuus ci biir ndox mi euh, source a dikk ak ñun euh, ci ki nga xamante ni moom mooy Lamine nee nañu kastu xam nga waa ji dañ ko tuumaloon démb Mamadou Khoule ne coopérative bi nga xamante ni ñoo yor wàllu coopérative bi nekk ci aéroport waaye nag nee nañu kenn du la mbéj ci lexu càmmoñ nga joxe lexu ndeyjoor source a ne Mamadou Khoule dikk dikk na wax dëgg yëpp ci biir journal bi source a daaneel les échos dikk ci ñun ci mbakki fay mi nga xamante xamante ni na ak Orange ngir lancer li nga xamante ni moom mooy promo euh, promobile altine ak jàmm incha allahu rabbi euh, Sud Quotidien dikk ak ñun <clears throat> ci réero bi nga xamante ne ni am na ci parrainage beeg. élection locale yi nga xamante ni nii mi ngi waaj a am L'As Quotidien ne dialogue bi daanu na ci cumul yi nan la ñu war a mën a def ba loolu yëpp dañ kenn ku ci nekk ndoom ndooma tànk ba nga am nga yem ca L'As Quotidien daane libération yi di yéen a kaay ni euh, ñii dañ doon faj ba faf jëree li nga xamante moom mooy jàngoroy coronavirus mu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti agent yi nga xamante ni dañuy yëngu euh, ci wàllu wér gi yaram record yéen a ne Sadio Mané la commande bëgg tànn ngir mu remplacer Lionel Messi mi nar a jóge euh, fële nga xam ni moom mooy ca Barcelone stade yéen kaay ne euh, bu doon tee jigéen la Sadio maane mun nañ wax ne que jar na ndax club yu bëri koy xëccoo mun nañu wax ni que kii nga xamante ne moom mooy Coman jël na ko ngir mu remplacer ki nga xamante ne nii moom mooy Lionel Messi mi nara wan wan ginnaaw euh, Barcelone. sunu lamb di ak ñun ci président Alioune Sarr mi nga xamante ne nii dafa tekki ndomba tànkam wala boog day waaj a tekki ndomba tànkam ci CNG ñan ñoo ko war a mën a remplacer. ñeenti nataal mu ngi ne fës ci mu njëkk sunu làmb Mike Tyson Yaxya Diop ni Moustapha Guèye ak Boy Kayré bu dee Tyson mooy premier vice-président chargé de la lutte avec frappe bu dee Yaxya Diop Yékini mooy deuxième vice-président chargé de la lutte sans frappe bu dee Tafa Guèye ak Boy Kayré ñoom lañ dénk lutte olympique kan moo ci remplacé ki nga xam ni moom mooy président Alioune Sarr waaye man tàllal naa sama loxo démissionné Futur Média ngir dem yoru CNG ah fa la bii ëppee te kenn du la contrôlé Chérif Chérif nag euh, euh, ne ñoom ñu ngi laaj de dem te <laughs> li si tali. acca <laughs> euh, dem. ci tali bi sama yi. Ibou dem ci tali bi na koo jiite. jërëjëf ah, euh, nañ dem ci tali bi nañ dem ci tali bi jërëjëf Lamine Sambar yow moom comprendre nga ni suñu conducteur dañ ko war a respecté jaajëfal ko bu baax a baax léegi léegi dañuy daw ci li ci tali bi laata ñuy dem RFM matin